dajji Paris Saint-Germain ñu dajji ko fële nga xam ni moo nekk Allianz Arena gu Sadio Mané ñaari bal ci dara plus benn bañ leen gékkoon a yolla ngar ñetti bal ci dara bu nu boolee ñaari match yi nga xam ni nee nañ ko runkum Paris Saint-Germain tuuti na trop ci Bayern Munich gi nga xam ni daanaka taxawaay bi nga xam ni Sadio Mané mu wéragul pilig sax téewul bayna yi Bayern tëj ci Paris Saint-Germain ñaari bal ci dara Bayern googee nga xam ni football na ko ngéwal ak Espagne di ko doxantaloo ci milieu terrain bi Mbappé mel ni ku réer xar jaar euh, ci goney Paris Saint-Germain yi nga xam ni euh, daanaka euh, daj na lu ne waaye dafa mel ni tey jii du seen bis ci li nga xam ni mooy wàllu football booy bambale bi tamit teewul moom it dugg si na yukki-yukki football na lu toll ci daanaka juróom-ñeenti minute séngam yoo xam ni entraîneur bi li mu ko di ci nopp laajunu la bit laajunu la jege ay camp waaye doon défenseur boo xam ni bu saf-sàpp la milieu terrain bi nga tëj ko loolee bokk na ci li nga xam ni Sadio Mané moom la doxal